ñuy suivre actualité politique bi yëpp gisee je pense que euh, il faut que ñu dellu un peu en arrière euh, pour xamal peut-être ñaa xam ni xamuñu euh, lan moo tax avocat président Ousmane Sonko saisir la Cour suprême li ko andi mooy élection 2024 yi dafa jib te ñëpp xam nañu Sénégal dañoo adopté benn loi depuis 2018 sur le parrainage mooy wane képp ka nga xam ne da nga bëgg a nekk candidat da nga war a dem si citoyen yi ñu uh, parrainer la parrainer mooy c'est-à-dire que ñoom citoyen yi ñooy wax ni d'accord nañu kii mën na nekk candidat loolu mooy parrainage ci gàttal loolu bu mu amee le 29 septembre vendredi si le parrainage yi waroon commencer donc euh, c'est à partir de ce moment si le candidat yi waroon dem DGE mooy direction général des élections mu nga xam ne moom mooy organiser élection yi pour récupérer seen fiche de collecte de parrainage bu ñu bu loolu amee candidat yëpp dem y compris le président Ousmane Sonko yónni mandataire am euh, te mandataire am bi moo doon l'honorable député Mohamed Ayib Daffé bi mu demee waa DGE xamal ni ko ni ko Ousmane Sonko euh, duñ ko mën a jox fiche de parrainage parce que ñoom dañoo dégg ni wala dañoo jàpp ni Ousmane Sonko dañ ko génnee sur les listes électorales bi ñu defee loolu nag ñun si boobu à partir de ce moment-là nañu saisir euh, la cour suprême euh, si benn procédure bu gaaw mooy référé liberté mooy procédure ba nga xam ne suñ la xàññee sa soo bëggee def benn mbir euh, autorité administrative yi mooy cest à xam ne ñoom ñoo yor réew mi wala état bi si gàttal xañ la ko soo gisee ni lii ñu la xañ tu yoon yoon may na la nga saisir la cour suprême par une procédure ba nga xam ni référé liberté nañ ko tudd bi ñu saisiree la la la cour suprême ni ko d'abord euh, le président Ousmane Sonko euh, amul lenn lu war a waral ñu génn sur les listes électorales mais ensuite xamal ni DGE aussi moom du juge ba nga xam ne moom mooy wax kii moo war a nekk candidat wala kii warul nekk candidat DGE moom day organiser élection yi citoyen bu nekk ak foo mënti jaar ak sa situation juridique nu mu mënti mel am nga droit ñëw retirer des fiches de parrainage damay wax ni sax Ousmane ko même s'il était radié des listes électorales sax du DGE moom mooy wax ni warul nekk euh, warul retirer des fiches de parrainage wala warul présenter wu parce que DGE loolu du rôle am son role mooy organiser les élections parce que euh, si la dans la nomenclature institutionnelle c'est-à-dire que suñu institution yi ni mu taxawee euh, ku nekk dafa am institution bu nekk dafa am rôle booy jouer DGE son role c'est de d'organiser des des élections loolu mooy euh, rôle am mais ensuite Euh, su ñu demee ba toll si phase wax ni kii mooy nekk at candidat wala kii du nekk candidat loolu rôle boobu ku koy joué mooy le conseil constitutionnel te phase boobu kenn yegsee guuf phase boobu mois de décembre fin décembre wala janvier début janvier lay lay lay commencé bu boobaa conseil constitutionnel moom mooy xool euh, dossier yu candidat dossier candidat yi des candidatures mu xool ndax le candidat a rempli toutes les conditions. à partir de ce moment là su gisee ne le candidat a rempli toutes les conditions mu doog koy ni sa candidature est recevable mu déclare que ne yow candidat nga su gisee ne yow tu n'as pas les conditions yow cest yi loi bi teg mataloo ko moom bu boobaa mu ni yow doo nekk candidat donc mbir mi noonu lay demee mais DGE rôle am newul pour di wax kii mooy ma nekk candidat wala kii du kii nekk candidat donc la DGE n'est pas le juge de la recevabilité des candidatures parce que dem retirer fiche parrainage teewul nit candidat nga c'est que prétention la rek danga am intention pour déposer sa candidature loolu mooy volon lool mooy nekk si dem retirer parrainage léegi loolu bu mu amee ñu ñëw wax effectivement le le le la cour suprême xamal ni ko nag DGE mesure bi mu jël le refus le fait de refuser de donner du jox le président Ousmane Sonko ses fiches de parrainage loolu dafa violer loi bi te tegu te tegu ko fenn est bi ñu waxee loolu juge bi si boppam moom xamal ñu en réalité ñun lu ñu wax dëgg la. c'est que li jaaxal décision la cour suprême c'est que bi ñun li ñu wax yëpp daan na ko d'accord na ci mais si fin bi mu mu refuser suñu requête. alors lan nga jàpp ni moom loolu moo tax mu def loolu parce que peut-être question bi ñëpp di posé wu mooy yéen bi ngeen génnee wax ngeen ni juge bi même sax reconnaître na ni yéen am dëgg. le fait que mu ñàkk leen jox dëgg aussi loolu naka ngeen koy. naka ngeen koy loolu lecture politique la rek. à chaque fois le président Ousmane Sonko da doon taxaw naan awma confiance justice bi. te du moom kese moo ko wax avant moom nit ñi daa woon ko même le président Macky Sall bi nekk au pouvoir yàgg na di critiquer la justice bu muy def politique autant bu mu nekk dans l' opposition critiquer na justice ba tàyyi Ablaye Wade aussi bu mu nekkee dans l' opposition il a critiqué euh, la la justice est ce que vous ñeneen ñu dul moom aussi critiqué nañ justice bi donc justice bi ñun problème bu ñu am problème de justice nañu am on a un problème de système judiciaire en réalité pas peut être d'homme parce que man jàpp naa ni man si la ma gëm. magistrat yu jub yi ak ya nga xam ne wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ñoo ngi def seen liggéey ba léegi parce que li la koy wan euh, l' avocat général bi yéegoon audience kooku bi mu yéegee audience sérieusement moom il a défendu notre position xamal na ni DGE du wareefam du rôle pour muy bañal le président Ousmane Sonko jox ko fichier électoral loolu loolu la avocat général bi wax ci gàttal donc ba pare mu ni la juge décision bi DG am bañ a jox le président Ousmane Sonko euh, ses fiches de parrainage là da nga war a wax waa DG nañu jox le président Ousmane Sonko ses ses fiches si gàttal mais malheureusement le juge vraiment bett ñëpp jël benn décision ma xam ni kenn xamul si par la ko teg loolu vraiment moo jaaxal nit ñi en réalité loolu day day day dellu si nag di jox peut être le président Ousmane Sonko ni quand wax dëgg yàlla su taxee naan amul si confiance justice bi nii la lii mooy wane ni aussi peut être. yeneen procès yi ñu ko tëggaloon ñi am ñu taxaw naan dafa waroon dem si yoon daf su peut-être su demoon seen dina demee neneen mais en réalité lii moo lay wan ni la peut-être dañu nekk si benn système judiciaire ba nga xam ni am dëgg taxul parfaite nga am nga am une bonne décision loolu lay wane en réalité c'est pas dans tous les cas mais am na yenn cas yoo xam ne surtout des cas politiques mën nga am dëgg mais soo amee dëgg tamit soo demee si kanam yoon gis nañu vraiment les les résultats loolu vraiment dañu dafa doon situation nga xam ni Euh, dañ koy ñaawlu c'est désolant wax dëgg yàlla vraiment c'est triste aussi wooy la quand bon ñu appeler les acteurs de la justice euh, à la retenue yaa ngi ko xam ni aussi Sénégal ñoo ko bokk parce que justice aussi c'est le dernier rempart de la société en réalité justice su naax saay naax saayee rek li pense que société ba dara des desatu fa quoi li tubaab bi di wax rek quand la force opprime c'est la justice qui libère est-ce que vous comprenez nit ki su la bëggee jaay doole te tegu si yoon soo demee si justice justice moo la war a jox dëgg mais nit ki su la jaayee doole nga dem si justice justice faalewu la donc bu boobaa yow dootoo xam loolu ngay def wala mën nga dem euh, utiliser wala jëfandikoo yeneen moyen pour jox sa bopp dëgg te moyens yooyu souvent du du du jur jàmm quoi loolu kenn ñaanu ko yàlla. alors euh, tey ñu bëri jàpp nañ ni peut-être euh, le fait que Cour suprême bi. Euh, mun na freiner Pastef ci seen ambition bi nga xam ne peut am nañ ko pour am nañ yaakaar pour que seen candidat mën a participer ci élection yi. Euh, non en fait c'est que loolu procédure référé la xam nga référé du procédure de fond y a y a y a y a une procédure de fond te ñun on va épuiser tous les recours yi xam ni loi bi may nañu ko. Euh, procédure de fond bi normalement ça doit passer à Ziguinchor devant le TI parce que le président Ousmane Sonko on lui a jamais notifié xam nga la loi parle de notification mais si on regarde euh, l'acte extrajudiciaire mooy l'acte d'huissier loolu c'est une signification signification ak notification bokkul si vous comprenez parce que nag acte individuel soo ko jëlee contre une personne loi bi euh, administration bi day da bind jox la ko ni la acte bi yow la concerné si donc loolu mooy notification mais ñoom dañoo jël seen benn huissier mu jël mbir mi yóbbu ko préfecture si vous comprenez alors que yoon mayoon na ko mu dem dernier domicile la yoon bi wax mu dem su ko fa fekkul fekkee dafa nekk en détention mu dem prison au niveau du greffe parce que prison bu nekk dafay am un greffe mu yóbbu fa la notification mais malheureusement ñoom defuñu loolu dañoo dem këram fekkuñu ko fa ñu ñëw euh, centre de réanimation au principal lu mu tudd sax ci euh, euh, au principal Euh, ñu ni leen nañu dem prison Sébi Sébikotane pour yóbbu fa acte bi ñoom defuñu loolu ñu dem yóbbu ko. à même dégg nañ sax ñu euh, dem di ko fa seet. waaw effectivement non euh, alma de façon loolu de façon ñoom ils n'ont pas respecté les procédures est-ce que vous comprenez parce que la loi parle de notification alors qu'ils n'ont pas notifié Ousmane Sonko kañ la xam ni. dañ koo radier sur les listes électorales ñoom décision boobu nañ jël te radiation boobu sax loolu dañ ci ñëw parce que radiation bi c'est illégal teguñu ko fenn amul lenn lu koy justifier amul fondement juridique amul dara mais kañ la ko xam bi mu demee di retisser fichier électoral la ko waa déjà xamal ni ko duñ la jox fichier parce que dañ la radier sur les à partir de ce moment parce que tu as cinq soo xamee ne dañ la radier pour def des recours à partir de ce moment nag la def recours bi mu defee le recours nag à de ce moment là bon euh, gis nañu décision bi vraiment ñi nga xam ni ñun ñun ñëpp bett nañu te vraiment du décision ba nga ñun rafetlu dañ ko ànd nañ ci le cour suprême jël alors dernière carte bi